jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd bokk ñun mbokk internet bu 5M TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf ci teewlu bi yéen ñi safoo site internet bi di 5M TV Sénégal li gën a fës ci bopp xabaar yi dañ koy door rek patriote ya nekk ci bu Paris ginnaaw tukkib nemmeeku bi nga xamante ne kii di Amadou Ba nekk candidat ci élection présidentielle ñu doon ma ko amal diwaan bu Paris dañ ko daal di yuuxoo ba noppi rek daal di koy sonkorisé ñi nga xamante ne ñoom ñooy militant patriote yi nag lañ koy yokk mooy Macky Sall dictateur la mu mel ni nag jamono ji sabotage bi daal di nay door ndax fépp foo xamante ne rek ndawal buur daal dina fay teew dinañu noppi rek daal di bu ñu jógee ko foofu dañuy àddu wutali kàddu yi nga xamante ne kii di Alioune Tine daal dina koy yëkkati moom njiital Afrikajom Center la mu daal di xam ne assemblée nationale nag di koy nag institution yi nga xamante rek moom moo lëmbee boobu lay assemblée assemblée nationale jot na rek ñu daal koy càmbaraat ba noppi daal di koy saytuwaat ndax nag bu gisee yenn kaddu yi rek ñu ko fay daal di ak lépp loo xamante rek boo ko waxee maanaam daal ci na assemblée nationale la mu gis jamono wi mooy assemblée nationale boo xamante ne rek dafa daal di ndax li nga xamante ne mooy politique am na lool jamono ji di kaddu yi allutir mu daal ci yokk nag nee benn par benn commission parlementaire warul exercer li nga xamante ne mooy violence